bàkkaar du wàlle waaye lu baax mën naa wàlle bàkkaar ñun ñii fi nekk tey lu ñu bon bon bon taxul mu wàññi dara sëriñ Tuuba waaye mbaaxu sëriñ Tuuba mën nañoo jëriñ te loolu mooy li aay bi ñu bon bon ñun ñii donte bonuñu waaye lu ñu bon bon ñun ñii fi nekk mbaaxu sëriñ Tuuba mën nañoo jëriñ te suñu mbon gii du wàññi dara du wàññi dara ki nga xamante ni moo di mbaaxul sëriñ Tuuba lii am kon nañ bàyyi arxuraan yi jël di ko jëfandikoo naka su dul noonu ngir la ngir mën a fekk nit dëgg rek ngir génnee ko ci dëgg ngir yóbbu ko ci ay fen léeg sax nag nga dégg ñu naan nekk doomu sëriñ taxul nga baax ay waay ñi ma yàlla weesuwul lii balaa maa dee sax ñu la jox exemple naan la doomu nuux doomu nangam doomu nangam naan la jabaru nangam yépp ngir lan bëgg laa wax ni la rek ñii fi nekk nii rek baaxuñ ay waay loolu du alxuraan ay eh waay loolu wérut da ngay xam ni yow léeg-léeg sax ngay tudd Seydina Nuux naan doomam xamoo ni sax ba may tuut yaa ngi mel ni kuy manque de respect Seydina Nuux mel ni loolu daa wàññi dara ci ak mbaaxam wala loolu bon gi doom ji doon bon daa daa daa yokk daa nàngam loolu njàngaleem suñ borom la waaye loolu tekkiwul ni képp ku fi nekk nit ku baax rek sa doom baaxul ni yonent yàlla nuux amee doom ju mooy ay ndigalam ba suñ borom alak noonu la Ibrahima alayhi salaam ame ay njabot yu ko déggal ba suñu borom teral leen lam mo tax yow tuddo Yusuf Ismaïl Souleymane Ibrahim lam mo moo ñor ci doomu Seydina Nuux rek lam mo tax nga bëgg jël jabaru lut ni mo bon rek lam mo tay nga tuddu jabaru Firawna Firawna ni bon bon bon bon bon yalla jox ko jabar ju baax léegi mbir ni bayi leen alquran di ngeen di jël diko fowé ngir won nit ñi ni li fi nek baax bàyyi leen seen caaxaan lii ngeen def ay kàcc képp la foo leen mën a tuddee jabaru luut ni daa bon mën nga faa tudd firaaw na nga xam ni da doon woote woo yàlla looloo gën a bon te jabaram ku baax kon booy jàngale bul jël demi mesure bul wax cinquante bàyyi cinquante bàyyi leen di xuppaate te wax nit ñi dëgg alxuraan kenn indiwu ko ci nazir bashiran wa naziran la alxuraanam fu yàlla waxee lii wax na leen ci wet gi kon bul di tudd li bàyyi lii bàyyi leen nit ñi ngeen yóbbu sawara ci ay actes yoo xamante ni actes yu woyof dee leen tudd lu baax buñ tuddee nit waskuru mahasina ma fihim iza zukiru buñ tuddee nit tuddal ko lu baax boo ko mënut nga noppi lii mooy alxuraan amul nag amul amul nag aaya alxuraan ba mu mën a wàccee wala xadis bu autorisé ñu tudd nit nga di ko xas ak lu mbon bon gisuma ko de ku ko xam nag na ma ko wax tey jii nag serigne touba bàyyi na fi ay seut ñu bax ñu sell lool nek ay borom xam-xam jang seen aduna yëpp ñu paase ko ci xam-xam ak liggéey serigne touba Cheikh Ahmadou bam suñ borom fayé leen di def boole leen ak ñu leen di dékkal lool waye nak loolu xeyna na am nañu metti am nañu metti nafiq ndax lan bëgg na ñoo ñu fi jógee ñoom ñu tok loolu képp la fi gis waye nak di gànn mesra waxon rek fi mom place amatu fi li fi mag ñi bàyyi mbindeef mu yàlla sàkk mënu ko fi jële ndax yàlla leen fi xam leen ni nag bàkkaar moom kenn du ko doon waaye ak mbaax dinañ ko doon bàkkaar kenn du ko doon waaye lu baax moom dinañ ko doon wala taziru waaziratun wizra uxraa kenn du ko doon waaye nag lu baax dinañ ko doon léeg-léeg nga gis ñu naan taalibe yi li ñu jox seen sëriñ si nga gis ku koy lu mu wax ko ci naan dañ leen di exploité waaye yow bu fekkee yow da ngaa liggéey at bi yëpp yor ay milliards wala ay million mille francs bi nga yëkkati wala deux mille francs nga jox sëñ boo fa toogee lekk fa palaatu ceeb palaatu ginaar jox la fa kanet nga naan ba giir yow kan moo war a dolli ba leen seen caaxaan yi li ngay gis ci télé ñu di ko jox kilifa gisoo li kilifa yi di joxe te ñu ëpp mbooloo moom ngay gis ci buntu kër kilifa yi nag bul yaakaar ña fa ñëw ñëpp dañuy joxe waaye ña fa jël si ñoo ëpp dafa fekk ni kay dañoo nekk ay nitu sutura nekkuñ loo xam luñ ko def rek ñu génn ci mbedd mi a nag xamoo taalibe yi fi sëriñ si yor xamoo nuñ toll buntu kër sëriñ boo fa dem fekk nga fa ay nit ñoo xam bokkut ak ñoom dara ay taalibe lañ te chaque jour saa yu moo leen jox ñu lekk ñoo jox naan dëkk ci këram te te loolu mën nañ loo xam seen ndey ak seen baay te pourtant mënoon na leen ci bañ a fekk ndax dundal ku dul sa njaboot loolu du waree ci lislaam ak mbaax képp xanaa gisul li ñu jox Wally Seck ci tribune yi bu wayee ñi daanu ñuy xam ah loolu du wax dëgg yàlla dam nekk nag mook suñu borom la waaye nag gisoo ko mu téye ay alxuraan nag di ko jàng wala mu nekk ci jàkka ji di julli ñi ne ci jàkka ji di julli kenn fekku leen di leen joxe milliard kenn fekku leen di leen may ay jamaa mais nag gis nañ ñuy fekk ci biir kujje mi di leen joxe léegi lu tee ngeen wax ci loolu waaye yen loolu ñor leen ku ñu fekk sa kër daal nga toog téye sa jukki alxuraan nga ñëw nuyoo ko mille francs yéen kooku moo leen ñor yéen waaye yéen ki nga xamante ni booy dugg ca moom yaa ngi koy jox vingt cinq mille entrée nga ñëwaat fekk ko ci ba ay jamaa wala xaalis yéen kooku moom ñoru leen parce que kon kooku moo ne ci diine waaye kon kii nga xamante ni bu xëyee day julli jaamu yàlla toog nekk ci ay toolam ubbi jukki alxuraan fekk ko fa mu nuyu ko wala mu nekk ci laa ilaaha illallaah ñu jox ko mille francs yi ñu jox kii ngeen gis te gisoo leen jamaa bañ jox kee wala wala deux mille jox gisoo leen ko lii mooy nafiq lii mooy nafiq lii mooy nafiq dëgg nag mooy naafiq Messi ngi nii Messi ci lu mu nekk nekkul ci jaamu yàlla waaye ñaata lañ koy fay góor soos xaw ma daaj daaju xaw ma dajji xaw ma dajjee ko mi ngi nii barki dem ba mu ñëwee fii loolu li ñu gis ay xale yu jigéen ñoo xam xamuñu ko xamuñu ndayam xamuñu bàyyam xamuñu fu mu soqi ko ñooy daanu di jooy ngir moom waxoo leen ci waaye boo leen gisee fi sëriñ bu ñu waxtaan sëriñ Tuubaa rek am murit bu daanu fekk ngeen ni ñii dañoo dof lañoo kii man lii moom mooy lan te pourtant saxaaba yi ñoo ñu dàqoon daanu foofu waxuma la saxaaba yi waaye bant yeeg matt yi sax dañ daan yuuxu ngir daanu ngir jaayu ngir Seydina Muhammad sallallahu alayhi lu baax a mel noonu waaye yéen ay naafeq ngeen gisoo leen lu baax lañuy def lee nit ñi di def ca wet ga nangu leen koo xool waaye waxumal dara nag mais lu ñut ba gisoo leen mais ngeen wëlbati di sos ku fi ñàkk fayda nag bañ wëlbatiku convaincre la ba nga bàyyi sab sëriñ xamal yaa xam dañ la dugal foo xamante ni bul xam kul ma xam la wusuul yaa kasal wala ñu rabbihim rabbi xat kamul fa innahu yaxuur fi baxri kada géeju alkan lañ la dugal ngay xuus di lëndëm te duñ la booleeg dara bàyyi la wala kaana nag doo xam foo jëm lii mooy li am tey Sénégal bayi len xel serigne si ngeen jox addu addiya muy témer ak ñaar fukk ko joom ñaata jakka lañ ci tabax lo xamanteni xam nga ne yow 1000 francs nga jox mën ta tabax sax mën ta jënd sax karaw nak xol leen bu baaxa baax njëriñ li nga xamanteni serigne sëriñ ñi leen koy amal ta baña deglu xaj yi xamanteni ci seen kep ci lañ nek ñaata kër ñoo fi nekk yoo xamante ni sëriñ si ñoo leen yoral ay dépenses xamoo leen ko gisoo leen parce que lu len soxalu rek soxalu len waye sos rek mo len sox mo len soxal ñaata juma lañ tabax fi xol len li fi tabax ñom ak li fi serigne tabax ñom jakk yi ñu tabax bo xolé juroom million lañ jakk demal Touba mën nga fa lim téméré jakk yo xamanteni ni benn bu ci nek ëpp nga téméré ñu nga dem xol seen kër yi amul kenn ku tabax kër gu xamanteni jar na nangam ko fi gisit mu tabax serigne boo fi gis mu tabax kër gu baax xamal ni mom tax ko waye ay ko taxaju fal yu krim day faaw kër Serigne Touba yaa ngi nii xoolal kër Serigne Touba yi ñu defar ngir ak kër gi nga xamante ni fii la xale bi nga gis ni kon kii boppam taxu koo jóg waaye la moo ko tax a jóg ngir teral julit moo ko tax a jóg lii mooy lislaam xoolal Masaalikul Jinaan xoolal jumaay Touba xoolal Daaru Minam xoolal Xelkom xoolal feneen ak feneen ak feneen lii du lu ñuy bind lii du lu ñuy nettali da ngay yor say bët rek mën koo gis xool ko gis ko ko daj soxlawul ñu lay expliquer soxla wu ñu lay sosal di la di la fen lii mooy li am mooy réalité waaye nag boo dofee di jéem a ut sam xel ba folli say bët yi nga xam yaa ngi teg bët di déglu say nopp ñi nga xamante ni dañuy sos di fen fekkewuñ dara li xew ñëw fii naa la sëriñ sàngam di def nangam te ba tey amuñu benn preuve naa la yor naa preuve yi nangam nangam xamal ni nag zayyana lahum la amaalahum mën na nekk seytaane mën na laa taaral say mbir ba nga yaakaar yaa nekk fekk ci fen rek la wax naa la iblis iblis li muy yées yées bu woote wante ab yonent billaahi li nga gis ku taxaw ne iblis moo nekk dëgg fii la àdduna toll fii la àdduna toll kon nag ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax ñi ñu bëgg génnee ci dëgg gi ñu nekk ngir yóbbu seeni fen ñoom xanaa nit sax balaa nga koo gëm sax nawloo xool leen seen melokaan tux yàmba kenn xamul lu ñu mel wëlbati bëgg laa wax ne lii du yoon yàmba yow xanaa balaa ngaa digla sa nga fekk nga sax kon Sénégal yi yeewu leen yeewu leen lii fi am as néew senegal fii lii fi baax as néew xam leen bu ñu amoon ay sëriñ bu ñu amuloon ay sëriñ lii du fi am li fi baax sëriñ si la daara yi fi gis foo fi gis mu samp daara fii te yàlla rek tax budul ab sëriñ sëriñ la génne fi gis franco arabe yi ñu ko fi tabax ñëpp ci cosaan ci sëriñ lañ génn jumaa yi nga fi gis ñu fiy jiite ñëpp ci cosaan ci sëriñ lañ génn waa ñii génnee leen fi xalaatal rek nga ni yow naa sib ba lépp sëriñ si def ba xam la mooy def ci réew fii ci diine nañu bàyyi na feq nañu bàyyi rambaaj yeeg kàccoor yi te xam ni seytaane mën na laa taaral lu ne xamal ni seytaane mën na am lu ne bu des gërëmal yàlla te sëriñ si fi ne gërëmal yàlla lañ am tey ji li ñu xam mooy léegi sax sët yi naan la di la tuddal naan bon sëriñ sa sët sàngam nangam nang sët sëriñ Tuubaa la diw rek nanga diw rek ngay dégg diw rek diw rek ngay dégg mbàkke mbàkke sàngam soirée nangam ba tey yow xamoo kan la fii ñaata nit ñoo fi sant Mbàkke ñaata nit ñoo fi sant Fall ñaata nit ñoo fi sant Nang ñoo fi mais loolu nee naa la Iblis bu xëyoon déclaré man murid la salteelu dara ci Sëriñ Tuubaa Iblis bu xëyoon ni Tijaan la yàqu dara ci tarixa Tijaan yi Iblis bu xëyoon ni ñaseen la yàqu dara ci ñaseen kon nag ku fi taxaw di woote woo naan murid la nekkoo ci li Sëriñ Tuubaa nekk ci yow e la yaa xam loolu e yow la concerne waaye loolu e yoonu Serigne Touba nag mbaaxu Serigne foo ko natt wees na mbaaxu suñu borom foo ko natt wees na nit ki lu mu nekk lu mu bon bon lu mu yées yées ah bu toq ngëm-ngëm nekkee ci moom kenn mënu koo génne ci def ko wax jee fi nekk rek waaye nit naan diw yéefar la wax jee fi nekk ñi ma yàlla rek waaye génnee nit ci diine yombul de te nit dugal nit diine ni mu yombe génne nit diine leen rek mu ñàkk laa ilaha illa muhammad rasulullah nit mu xasee wax baat boobu mënatoo ko génne ci loolu da ko weddi li la koy mooy ki nga xamante ni nekkul ab jullit mën a def mais di woo def bu ko neex da azaka sàkk nangam ak nangam taxul mu doon ab jullit te ba tey ab la moo ñu wutale daf mënta reconnaître baatu laa ilaha muhammad rasulullah kon nag loolu mooy li nga xamante ni bu ci nit nekkee moo tax suñu tubaab ne wala tuaadu malaaikatun saamu yuxriju laa képp koo xam ne baat laa ilaaha illa mi ngi génn ko gisee koo xam nekkul naka su dul noonu da koy woo nga laa biiram waaye waroo génn di yàq deram ndax yéen da génn di yàq deram yow yaa mujj sikk yow yaa mujj wëlbatiku am bàkkaar léegi leen ko bàyyi xel waxuma laa nag nga koy sosal <coughs> dañ ñëw ne la bul gàmm tey fetu bul màggal tey feetu seen indépendance bul màggal nit tey warmaal américain wala anglais lii moo fi nekk jël baat yi nag di ko transformer nu mu leen neexee naan waroo màggal nit yàlla lay war a màggal ci lii ban arfaan màggal nit ak suñ borom tanzim suñ borom ba tey bokkuñu war mag ngay warmaal nit loolu mooy màggal gi ko màggal rek nit ki boo nee ko bu tuddee xaarim faal nga ne ko sëriñ xaarim faal rek màggal ko sëriñ boobu nga ci yokk rek mooy nit ko xam borom xam ñaan ko docteur wala yëpp màggal nit mooy war maal si ñun sax moo ne anzilu naas manazilum ki nga xamante ni sax kii sa Ronaldo sax xanaa sax doo ñëw ni ko ñëw ni ko Ronaldo di ko ndax lan wàcc waayam ci àdduna lii mooy màggal nit loolu daa bokk ak màggal suñu borom nañu bàyyi nit ñi ñuy réeral di leen dofloo ci yoo xamante ni amul benn leen jeu de yi ngeen def di fowee li nga xamante ni moo di Alxuraan xanaa kon buñ nee diw rahim kon yàlla la yéen a yàlla wax ko ne rahim wax na ko di wax na ko demal laqad jaakum laqad jaakum rasulun min anfusihim aliman harisun alaykum bil mu'minina rahim te raufun rahim googu lan la raufun rauf dur yàlla rahim dur yàlla waxuñu ko yéen a sallam nañ ba seen caaxaan yi ñu nekk bàyyi leen bu ñu jëlee ab concept ngeen jël ko yóbbu feneen bokkaale la màggal nit du bokkaale wormaal nit du bokkaale ab sëriñ nit la comme ñëpp ak lu mën a am sëriñ nit la waaye nag mooy nit koo xam ne nag référence la balaa maa deel dee nag Sénégal ñu naan sa baay bu doonee sëriñ rek téewul nga doon ab sëriñ te pourtant bu ñu gisoon zoro kii général la ñoom ñëpp ñu màggal ko war maam zoro kii général dañuy tàppe sax YouTube di ko seetaan ay waay ji ki nga xamante ne moom boppam la fi nekkal bal la fi nekkal nga fonk doomam waaye léegi ki fi nekkal yàlla nag lii mooy ak naafeq jabar Wally Seck ngi ñii bu génnee ci bedd ñii di ko tàcc ñii di ko xool di ko def ndax lan Wally Seck moo tax waa léegi ki nga xamante ni nag bàyyam dafa bàyyi àdduna dëgmal suñu borom subhanahu wa taala ndax war a respecté doomam lii mooy Sénégal lii mooy Sénégal lii mooy Sénégal kenn xamut yëf yi mu dem ba leen seen caaxaan yi ngeen nekk ku baax kay njaboot gu baax ci mu leen gën a séntu buñ nee diw sëriñ la ba nga xam jikkoom doy na la soxnaam baax na kay bu yoree doom dañuy jàpp ni daa baax ni day rafet jot te it loolu mooy cosaan li nekku cosaan kay mooy nga baax sa doom bon te loolu mooy exception loolu mooy exception waaye loolu nga baax sa doom baax moom loolu mooy yoon loolu mooy yoon te du lu bees moo tax bu nee diw ab sëriñ la njabootam nga ci toog ñëpp dañ leen jàppee ab sëriñ ku ci bëgg a génnee sa bopp njaboot yaa ciy génnee sa cay génnee sa bopp mooy la nekkoon nga ni ko fi ñukk dem mu yaa cay génne boo fi nekkee sëtub sëriñ Tuuba nga ci ko si yàgg ni fi ñukk li fi sëriñ Tuuba bàyyi faale woo ko dem doon leneen murid tamit ni la fi ñu dem ànd ak ñu ànd ak Serigne donc kon yaa ci génne sa bopp mais nag boo nekkee ci biir nag nekk ci li Serigne Touba nekk yaa duñ la wutale suñu bopp léegi nag Sénégal dañoo bëgg a wax ni ñun kon ku fi Serigne Touba ñu fi bàyyi moom kenn baax te loolu dara du ci dëgg man day xawma ma njaboot Serigne Touba xaw ma ci ku bon man ñi ma ci xam na xam naa duñu jeex bu ñu dee un million rek wóor na ma woon sept cent mille personnes moo xam naa leen dimbal nit laa leen xam ci xam-xam laa leen xam ci daara ci jaamu yàlla ci def lu baax ci dimbali doomu aadama loolu rek laa leen xam man bu ma déggee sax kuy seedal ab lu ñaaw man loolu moo may jaaxal man man xawma loolu li ma gisuma loolu waaye dégg kuy seedal ab lu baax man loolu jaaxaluma ndax loolu lu ma xam la lu ma miin la sëriñ dëgg nag sëriñ Tuubaa leeral na ko ci masaali léeg-léeg nga gis ku dem jël téere masaali kenn muccul ndeysaan sigam Alxuraan moo muccul masaalik du mucc léeg nga gis jël téere masaalik sëriñ Tuubaa fa muy xasee sëriñ dóorkat yi mu jël foofu tibb foofu di wax loolu mooy àdduna xanaa ah, xamoon ni mu amee ay sëriñu dóorkat noonu la amee ay taalibi dóorkat benn la di ni mu amee sëriñu dóor noonu la amee taalibe dóor kon nag bul fekk li Sëriñ Tuubaa wax ci nit ñi te Sëriñ Tuubaa loolu bu ko waxee ngir protéger ñu ngir aar ñun ñii la du arme bu mu ñu jox pour mën a pour mën a yàq li xam moo di yoon nee lan la ngir aar ñu ñun ñi nga xamoon dañuy woote woon dañoo bokk ci yoon te bokkuñ ci ñi xam dañuy woote woon lu baax te newuñ ci loolu moo tax Sëriñ Tuubaa jàngal ñu Sëriñ Tuubaa dañoo préparé bu baax ah ñi li leen bu baax ñi bokk ci man ak ñi bokk ci man loolu moo taxoon mu wax ñi xeet sëriñ si nga xamante ni ndax nag dalla sa'yuhum fil hayaati dunya mën na nekk ñoo xam dañuy jàpp li ñuy def lu baax la fekk dalla sa'yuhum waaye it mën nga gis mbir moo xam jàpp baaxul te fekk lu baax moo tax nit ki faw muy teey faw muy teey mën a ràññee la bu baax baax mën nga gis ku sol bolok te fekk ab sàcc la mën nga gis ku sol veste te fekk ab sëriñ la ku baax la kon nañu bàyyi xel loolu lañ suñ ba bàyyi loo xel ci zahir bii ñu gis dañuy gis ku nit ñi di wër di daw di dàqe ngir mën koo gis te fekk nekkul ci dara mbooloo moom mi ngi ànd ak moom jëmmi leen ci seytaan di xamante ni ëttam dafa wéet te pourtant ku fa dem mu boole suñu borom ndax ak mbaaxam kon nañ bàyyi xel bu baax rek lii ñu gis di folklore jàpp ni sëriñ bi nga xam moo ami mbooloo rek kooku rek moo ne waaye loolu tekkiwul tamit ni sëriñ bi ami mbooloo nekkul ci dëkk nañ bàyyi xel bu baax a baax di sëriñ Tuubaa Serigne Touba xasul kenn Serigne Touba dafa jàngale eh. lu baax la jàngale waaye kenn wóoruwul ba di jël njàngale Serigne Touba mu jëfandikoo neneen nah, lu noonu ndax àdduna dafa yàqu man ngaa gis Iblis mën na yabal ab doomam sax mu ñëw ni ab sëriñ la mu ñëw ni ab mbàkk mbàkk laa sant ndax gis nañ ko fi gis nañ ko jóge ci àll ba ni man mbàkk laa sant ñëw sol yére bu baax entraîne defar boppam loolu lu yàgg la ci lislaam lu yàgg la ci lislaam ñëw préparé boppam jàng xam li xew ci yoon ñëw ni mbàkk mbàkke la loolu am na fi ba taay kooku na buul ba di ko def lu ko neex nag loolu daa tax Sëriñ baa tax loolu daa tax ñu ne Sëriñ Sëriñ Tuubaa baaxul loolu daa tax ñu ne yoon murid baaxul balee seen caaxaan yi nee naa la bàkkaar du wàll nit ku ne individuellement li nga def yow lay concerné yow nit ki individuellement ku la ci fekk si nag moom moo la ci fekk si waaye moom lu baax ak lu bon ak ku choisir topp lu bon li nag léegi-léeg sax ñu naan rabbana arina suñ borom wan ñi nga xamante ni ñoom lañ topp ñu réeral waaye yéen loolu daa tekki dara ak yoonu daa am benn rapport ak tarix daa am benn rapport ak ab sëriñ ñi ñuy réeral kay mën na nekk ab ibaadu ki ñuy réeral mën na nekk ab waykat ki ñuy réeral mën na nekk ab footballkat ki ñuy réeral mën na nekk leneen ak leneen la moo tax bu ñu nee rabbana arina adallana ba jëf tax ngeen ni sab sëriñ loolu loolu mooy la lii mooy dàq ginnaaw waxaale soxla nañ bàyyi xel xeetu pees yi nañ bàyyi xel loolu nekkul yàlla bu xasee rek nga ne kii la xas alxuraan aaya boo gis am na sababu mu am na contexte bu ko tax a bu boobaa la nga koy kole na fekk ñu nduróo nañ waaye nag nekkul loo jël rek kole taf déewu noonu buy jàngale la bu lay di la gire di ci yoon da xam waaye nekkul loo arme la nga xam ne koo xëy ne ko yéefar nga ba la gërëm nangam aaya bi kay mën nañ koo coller ci képp ku nekkul ci yoon rek lan moo tax ñu ne ab sëriñ la lan moo ñu tegtal ni ab sëriñ la mënta nekk ah Ahmed Lo mënta nekk Omar Sall moo ñu wax ne du Omar Sall mënta nekk Messi mënta nekk Youssou Ndour mënta nekk Wally Seck mënta nekk man mi waaye léegi la moo tax ñu bëgg ko jagleel lii képp déedéet contexte bi mooy ñi nga xam ne ay nit dañ leen topp dañ leen di réeral ñoom ñoo moom aaya boobu waaye képp ku wax ay nit dañ leen topp nga teg leen ci yoon bu baax moom moo bi lii mooy alxuraan nañ jàngal nit ñi alxuraan dëgg-dëgg bañ di réeral nit ñi di philosophie ci alxuraan te yooyu ay caaxaan képp nee naa leen xàmmee leen kiy wax dëgg ngir génne leen seen dëgg ngeen nekk ngir dugal leen ci seen bu mu nekk ndax lan zayyana lahum seytaan amal seytaane mën naa jël am mbir taaral la ko taaral ba nga ne lii mooy lislaam fekk loolu lislaam yoonu murit nag damay wax naka jekk ku mën a seppi seppi lu tool ni tarafat raayen ci yoonu murit lii wuute na ak sunna maa ngi lay xaar nee ma ana nee ma mi doo ko gis ci am Sëriñ Tuubaa ñi mu àndal ñi mu ànd waxuma laa ñi woote woo ànd Sëriñ Tuubaa ma ñooñ sama yoon newu ci ñoom boo léegi ñoo suñu borom ak Sëriñ Tuubaa ñoo koy layoo Sëriñ Tuubaa ñi mu àndal lii ñu nekkee mënoo fee gis lenn lenn lenn lenn luy sikk keneen koo fi gis mu nekk ci leneen loo xam sikk la nag loolu moom la concerné bàkkaar du wàll ak mbaaxay wàlle kon nañ bàyyi xel bu baax a baax suñu nañu sant yàlla yàlla ba mu ñu booleeg suñu kilifa yi waaye buñ fi amuloo dina doy waar ñu réew mi yàqoo boo xoolee ñi fi féttirlu sax amuñu kilifa seetlu rek ku am bët seen ñii ñooy activiste su xool rek ni ñu mel ñàkk kilifa képp warmaalu seen ndey warmaalu seen baay amuñu kenn kuñ jox cër taxaw di saaga kooku moom ñàkk kilifa ku am kilifa doo def loolu dañu wax ku am kilifa doo def loolu Sénégal lañ am gi mu am kilifa moo tax réew mi mën a am jàmm ak stabilité ku mu neex ak ku mu naqari loolu moo ci nekk loolu nag du tey la mag ñi dañ koo liggéey ba mérité ko seeni sët ñëw nekk ci loolu ba mérité amul ku fi yaafus fii sëriñ si fi nekk seenu mbaax foo ko natt wees na bu dee nag yow lii nga teg bët ci zaahir nii ñu leen di jox moom nga leen iñaane soxore leen tampi jëru ngay sama sa bopp loolu day yokk ku bàyyi àdduna dëgmal yàlla yàlla dina wommat nitu àdduna lu ñu yor jox la bale seen caaxaan yi balaa maa dee nag léeg-léeg ñu naan gis sëñ sàngal di ko toog ci mbooloo ñu naan da leen a da leen nangam dañoo dof moom xamoo leen di xew sax yéen wéroo leen yéen xamoo leen li xew xamoo leen nitug yàlla nitug yàlla ngeen xamul rek nitug yàlla bu demoon kirikoro ne fa ci àll ba nit ko fekk jox ko lañ yor ci kaw yi yi gaynde la ñuy romb dinañ mu nekk jox ko yàlla rek tax loolu ngeen xamul xamoo leen ku yàlla samp loolu ngeen xamul yéen li ngeen xam mooy ak naafeq dund ci naafeq loolu ngeen xam da yaakaar ni ba yow yow kay segam boo saaga ab sëriñ ñu jox la kay kon kay yow bul fekk kuy tàgg ab jox ko kon yéen ñaar na moo lii moom jaaxal bu dee yow boo saaga ab ñu fay la léegi ki tàgg ab sëriñ ñu fay ko wala yii ñaar lan moo leen wutale suñu borom bu dee yow li wax du dëgg ak kii li mu wax du dëgg yii ñaar ñëpp waaw bu dee ki taxaw di wax lu baax ci sëriñ si ñu fay ko ki nga xam dafa taxaw di wax lu bon ci sëriñ si ñu ñoom ñaari ñu ñoo yam képp ci lislaam ñoo yam ci yàlla ndax innama amal bi niyaat li leen di wuutale kay mooy kii bu dee wax ci sëriñ te yàlla rek tax moo la ëppale nag ba da ngay te yàlla kuy wax te yàlla rek tax doo yàq sax déedéet lu baax rek ngay wax boobaa kay da nga naan da ngay ñëw ni li sëñ Tuubaa jàngale da tey tey gis nañ ñoo xam ne génn nañ ci waaye doo ñëw naan diw sàngam sët sëñ Tuubaa la nangal lay def te teg ko ci ay sosket nañ maytu bu baax a baax a baax activiste yi ndax li ñuy wax dara dara dara dara wér Sénégal nag bay boo ñu sant suñu borom ndax suñu kilifa yi bay boo ñu war bu baax suñu kilifa fii réew bi nekk ku neex ak mu naqari seenu mbaax la moo tax réew mi am lii waaw te nag ñi gën a développé avancé ci réew mi it mooy ñi nga xamante ni déggal nañ si loolu moom ku mu neex ak ku mu naqari ñoom ñoo fi nekk ñii ñu ñëw nag nga xam ne ay dérive ay arrivé lañ ay trouvé lañ xamuñu tous ci histoire réew mi seen yoon newul ci doxinu réew mi fit na képp moo leen tax a jóg fu ñu dugg rek xaar yaa tan afsaduha loolu moo leen tax a jóg ñooñu bay boo ñu mayet leen ndax ay naafeq lañ ay rambaaj lañ islam taxu leen a jóg seeni post képp ñoo nga xam kon nag lii fi mag ñi def ku ami bët gis ko ku ami nopp dégg fal leen seeni bët te folli seeni nopp duggal Sénégal moo xam fu mën a nekk nga dugg Dakar ak fu mën a dem nga xool réalisation yi suñu kilifa diine yi def li gën a yomb nag mooy xalaatal ci sam xel rek nga ne Dakar jaay gii li fi tuba buñ ko dindi woon def moom alaaj Hadj Malick ci am lu buñ ko dindi woon la moo fi des nga xalaat ba xam dara dafa des géej da nga fi dese kon mu nañ xam bu baax a baax a baax suñu mag ñi importance bi ñu amal ci diine sëriñ mënut ñàkk ci doomu aadama na jamono ji ñu nekk defa mësta ñàkk mën a ñàkk ci doomu aadama jamono suñu aadama ba tey jii nag sëriñ nag mooy ab yonent rek tur la concept turu yonent la cheikh ab sëriñ la rek kilifa la rek entraîneur kilifa la rek coach du kilifa la rek manager kilifa la psychologue kilifa la ñooñu ñëpp lan la mooy dañuy defar sa bopp defar sa sa science sa conscience ba nga mën a teg ci yoon ba nga mën a tegu ci yoon moo xam ci àdduna la moo xam ci la xëy na kay ki nga xam ne ci àdduna lay lijjanti la nekk moo lañ tuddee manager nangam naa ki ne ci àdduna ki nga xam ne àllaaxira ko tuddee ñu naan ko sëriñ waaye ñoom ñëpp tarbiya doomu aadama lañu loolu nag mos na ñàkk ci àdduna mos na ñàkk ci àdduna kon nañ bàyyi xel bu baax ñi nga xamante ne ay ndawal iblis lañ iblis moo leen yónni ñu ñëw ngir mën ñoo boole ci waa iblis ñun li ñu sëñ defal doy nañu sëkk soxlawuñ lu diw def ak lu diw def déedéet ñaa nga dem sëñ Tuubaa doy ku ci sukkandiku du réer te bu ëllëgee nga ma xam di nga bokk tànni